seen mbokk Abdoul Aziz Touré moo ñëw di waxtaan ak yéen ci ay fan yuy waaj a ñëw di fan yu mag yoo xam ne yi ay xéewal yu bare bari da cee ne te ñu bari ci jullit ñi mën nañ koo bañ a xam fan yooyu mooy fukki fan yi njëkk ci weeru tebes ki ci xadis bu wér boo xam ne wér na bazaar solo ko jële ko ci saxaabi bu mag واخ جابر ابن عبد الله رضي الله عنه سيدنا جابر نينا يننت يلا محمد صلى الله عليه وسلم نانا أفضل أيام الدنيا أيام العشر مولم فني أدنى بسي أدنى بسي تيغن ما يفك فن ينجك تيوير تبسكي لول سيدنا محمد واخ صلى الله عليه وسلم لولا دفع أمر ميتك لميتك موي julli koo ci julli moo gën mboolem julli yi nga julli ci yeneen fan masalan bu fekkee ne bii julli ji nga jàkk fajar ca jàkka ja walla julli nga gee ca mbooloo ma wala beneen waxtu bu ma doon ci waxtu julli juróom julli googa moo gën julli nga julli ca bis ba ko te bokkul ci fukki fan yi ay ay moo ko gën fajar goo tàbbal ci fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski moo gën julli fajar goo def ci beneen bis boo xam ne bokkul ci fukki fan yi njëkk ci yoor tabaski julli gee gi noonu tisbaar noonu naka noonu naafila boo ci def ñaari rakkaa yoo ci julli wala nangami rakkaa ci guddi mbaa ci bëccëg yàlla tere nga fexe ba jóg ci njël gi fukki fan yi mujj yi nga jóg ci njël yi njël yépp nga jóg ko guddi gu njël gu ci nekk nga fexe ba julli ci la nga mën ci ay rakkaa fukki rakkaa benn wala juróom-ñeent wala la nga mën naafila googu ngay def mu tudd tahajjud nga def ko ci njël njëli bis yi nga xam ne daa bokk ci fukki fan ci tabaski moo gën fukki rakk ak benn wala beneen naafila boo def ci njël goo xam ne bokkul ci fukki fan yu njëkk ci fukki fay tabaski kon naka noonu koor gi koorug naafila goo ci def joxe goo joxe ci yàlla yow mbokkum jullit mi ndax da nga jékki-jékki dindi sa alal joxe ko te fekk joxe woo ko di ko tudde dara joxe woo ko ngir bëgg ko la tagg joxe woo ko ngir fay bor joxe woo ko ngir jënd joxe woo ko ngir ragal ko la xas joxe woo ko itam ngir daa waroon ci yow aslan sañoo ko bañ muy ab dépense boobu danga nga koo yëkkati ne lii dama koy joxe ngir di wut lu neex yàlla ndax di nga def loolu léeg-léeg loolu ëpp naa bañ a def waaye boo ko dee def xamal ne bu fekkee da ngaa fexe ba def ko ci fan yi fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski moo gën fuuf joxe bi nga joxe ci yeneen fan yu bokkut ak yooyu loolu lépp waxe yonent bi da koy ëmb sallallahu alayhi wa sallam afdalu ayaami dunia ayaamul ashr mboolem fani yi adduna bi fan yi ci gën mooy fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski boo ci jokkee bokk boo ci tabtowee sa wéjur sa yaay wala sa papa moo xam dañoo màggat moo xam màggatuñu yàlla tere ñu xaw a màggat boo ci seetee ku feebar yàlla tere nga dindi dara dimbalee ko boo fekkee sa mbokk mu nekk ci tiis nga dindi dara dimbalee ko lépp loo xam ne aw yiw la woo ci def dangaa julli dangaa julli julli mbooloo dangaa woor kooru ngàtt nga dangaa naafila ci guddi mbaa ci bëccëg joxe ngir yàlla te yàlla tax say wéyjur jokk bokk danga seeti ku feebar danga dimbali ku jaaxle ca lan ko mën a dimbalee bépp xeetu jaamu yàlla boo ci def tuyaaba ja dañ koy ful day rëy mooy gën a rëy jaamu yàlla googu boo ko defoon ci yeneen yi fan kon nag fan yu mel na noonu bu dee bëgg a ñëw faw nu war koo fàttalente nun jullit ñi te woo tent ci te yow miy dégg kàddu gi ginnaaw ab jullit nga rek wootekat nga war a doon buy woote ci li yàlla bëgg kon dangaa war a fexe ba sa njaboot say soxna ak say doom say xarit ak ñi nga xam ak ñi nga xamul jaare ko ci net bi whatsapp yeeg réseaux sociaux yi yëpp jaare ko ci fépp foo ko mën a jaare ba lu gën a bari ci nit ñi ñoo mën a jottali nga jottali leen yoo li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam pour ñu waajal fukki fan yii di waaj a ñëw fukki fan yii jiitu ci tabaski ñu waajal ko lu ci waay man ci julli ca mbooloo ma lu ci waay man ci naafila ci guddi mbaa ci bëccëg lu ci waaye man ci njàngum alquran bu ci waaye man ci toog ak boromam yàlla zikr zikr te na ko yàlla santaane ak na ko sayyidna muhammad alayhi salatu wasalaam jàngale moo xam istighfar yu bari la moo xam salatu ala nabi yu bari la moo xam la ilaha illallah yu bari la moo xam la hawla wala quwwata illa billah yu bari la moo xam subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yu bari la bépp xeetu zikr boo xam ne yonent bi jàngale na ko sallallahu alayhi wa sallam nga fexe ba loo ci man nga def ko ci lo ci def nako ko noonu ci alal nako ko noonu jokk bok nako ko bépp xetu jaamu yàlla bo ci def nga xamne li dal mom tiyaba tuyaaba ji na muy toll mooy bari boko defé bu fan yi ñëwagul wala bu fan yi paase kon nak lolu promotion deug la lolu yi ma dégg ñu ne wa Sonatel dañ koy def leg leg leg leg ñu ne dal bi sàngam di ko tàmbalee ci heure sàngam ba heure sàngam bo dugalé crédit ci sa portable bu dee bu dee cinq cent wala bu dee mille franc danga am 100 pour cent mbaa yenn saa yu ne am 200 pour cent yenn am 300 promotion bi dëgg mooy lii kon boog jot li ko mboolem say am di jàmm ak ñi nga xam ak ñi nga xamul ñëpp occasion gu noonu pour say balance yi tuyaaba yawmal qiyaamati ëllëg occasion gu noonu pour pour pour diisal ko kenn ku nekk ci nun na jéem a diisal ay balance yu tuyaabaam yawmal qiyaam yawmal qiyaamati bu ñu taxawee fi kan mu sa borom yàlla jëf rek. جف ركتكو جف دو سل جو ديبوك سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تيالا نونكو لو رك موي جيرن اب يوم القيام لالن اموفا بوكو فيكون كون بو خاماني بي إن نيو بلانسي تا فك فك فاني جيك تي ورت سي جولي سي نافله يوكون غا سي كوري غارت غا جخوار غا تي يالا ديد غا ديد اب 5000 ديد غا dina nga cinq cent mille joxe ko te fekk yàlla rek ko xam ak yow ak nga ko jox te yàlla dong tax malaaka bind ko dencal la ko ma ngoog eh, jokk nga bokk ma ngoog toppatoo nga wajur wu màggat wala wajur wu néew doole lépp loo ci def ci jaamu yàlla bu àllaaxira bokk na ci yi gën a gaawal diisug say sa yi tuyaaba loolu nag yow mi ko dégg da ko war a tas ba sa mbokki jullit yépp dégg ko te yow itam nga occasion wu ci bul bàyyi mukk occasion bi mu lay raw loo amoon ci bori koor fas ko yéenee fay loo amul ci bori fexeel ba fukki fan yi mujj yi nga woor ci li nga ci mën a woor lépp jaamu yàlla ci li nga ci mën a jaamu yàlla yépp ci xeeti jaamu yàlla yu baax yépp njàngum alxuraan mu bari mu sell moo xam ne wi njàng mi jubluwoo ci dara lu bëgg mu neex lu neex yàlla zikr zikr bu dëppoo ba sayidna muhammad jàngale sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne jubluwoo ci dara lu dul bëgg lu neex yàlla mu nga joxe julli yeewu njël jàngale jàngale li nga xam ci lu baax mu ngoog loolu lépp lu ci waaye man na ko def te lu ci bu baax a baax yal na nu yàlla may tawfiq nu fekkee fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski wii di ñëw xam nañ ni seelu bu njëkk bi am na ñu ko jàpp alxemes lu ñàkk ci adduna bi ñoo xam ne alxames dañu seenu weer bi du ñàkk ci a ci ci ñoo xam nag ñoom ajjuma lañ koy seenu lu ci mën a xoo jàmm kon mën naa am am ñu ne weer wi benn panu ajjuma la euh, le deux am na it mën naa am it ñu ne déedéet benn panu samedi la le 3 le 3 août waaye rek lu mën a xaw jàmm yow fexeel ba xam yow mi julli bi di dégg kàddu gi fexeel ba xam benn panu weeru tabaski bi ban bis la bis boobee nag la ko fa tàmbale ba ba ci bisub tabaski bi loo ci mën a woor loo ci mën a julli loo ci mën a joxe ci yàlla loo ci mën a zikr loo ci mën a seeti ku feebar loo ci mën a loo ci mën a jokk bokk loo ci mën a baaxe wayjur bépp xeetu tuyaab boo ci mën a def rek defal ñaan yàlla mu nangul la ci dencal la may maa ngi ciy saraxu ci yow ñaan sarax ma ñaan ngir yàlla sarax ma ñaanal ma sama borom yàlla mu jéggal ma samay bakkaar te may nu mujj gu rafet sarax ma ñaanal ma sama borom yàlla keroog may taxaw ca kanamam yowmil qiyaamati nit ñëpp teew keroog may taxaw ci kanamam sama wàll bu agsee ma fekk fa inna rabbana la gafurun shakur ma fekk fa saayan mashkura wa damban maghfura yal na la ko yàlla defal defal na ko defal ko jullit ñëpp maa ngi lay sarafa nga ñaanal ma ko te di ma ko ñaanal yow dégg kàddu gi maa ngi soññi sama bopp di soññi ñëpp ci fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski wii di bëgg a ñëw lu ci waaye mën a def ci lu baax fan yëpp nag la ñuy woor ba des ba mu des bisu tabaski bi moom kenn du ko woor bisu arafa bi itam muy juróom-ñeenteel bi ka nekk ci arafa moom du ko woor waaye ka fa nekkul nag boo ko mënee woor moo gën maa ngi nuyu ñëpp di jéggulu ñëpp di ñaanal ñëpp di sàkku ñaan ci ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen mbokk Abdoul Aziz Mahmoud Al Hady Touré fii ci Fass Touré